Omar Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay. Euh, yow yaay euh, président SOS littoral. waaw loolu moom am na. waaw dañuy euh, doore waxtaan bi ak bradage littoral bi yenn yàgg na yéen a ngi combattre loolu ngeen koy xeex foo leen toll jamono ji seen xeexu li nga xam ne ñi occupé de façon anarchique li nga xam ne moo di littoral bi géejawaay corniche ba ak yeneen ak yeneen. waaw xeex bi fi ñu si mooy sonn nañ trop te ñu ngi koy xamal. nu Sénégal vraiment ñun euh, ay citoyen rek lañ alors euh, yu discipliné nag quand même alors euh, ñun dañ am ay kilifa et xeex bi dañu bëggoon suñu kilifa yi dégg ñu tuuti mais dafa mel ni kilifa yi dégguñu ñu mën a kilifa yi nag man njiitu réew mi si boppam lay jiital ba si suuf alors xeexu géejawaay acteurs yi nga xamante ne ñu ngi foofu vraiment ay jàmbaar lañ maa ngi leen di féliciter aar sunu littoral lañ tudda bon acteurs yi nag moom ñu bëri ñoo ñëw di wàlli bu baie de Hann vraiment kooku aussi te bokk euh, plateforme SOS littoral maa ngi koy félicité parce que moo moo taxaw foofu jëmmal ñu jëmmal baie de Hann jëmmal Rénov alors euh, man euh, ta fan yi maa ngi si liggéeyu tànk collectif des trois villages alors xam nga suufu aéroport bi parce que aussi ñetti villages yi ay villages littoraux lañ yaa ngi dégg donc loolu moo jël sama temps yëpp ba sama xarit yi foofu si aar sunu littoral gisaguñu ma mais si plateforme yi maa ngi leen di wax ne il faut ñu dem vers une mobilisation nationale sur parce ku si nekk da taxaw si sa dëkk rek di xeexal sa dëkk lu baax la nag voilà lu baax la mais dañ war a dem si li tubaab di wax vers la synergie des forces citoyennes pour que xeex bi nag nguur gi déglu état bi déglu ñu parce que état bi daf ñu tënkamlu parce que état bi si boppam moom moo tëral ay loi moom moo ne le code du domaine public maritime mu ne littoral loolu nag tubaab laa ko mën wax et inaliénable et imprescriptible maanaam mënuñu ko di bindal kenn di ko jox kenn wala di ko jël di ko yóbbu si loo xamante ne mais du du du doon ne njariñu askan bi yëpp la rural bi aménagé ko mu nekk un espace public nit ñi di dem waaw loolu ñëpp ko bokk parce que li tax loolu ah, loi bi ñu war si taxaw wax si dans le code du domaine public maritime li tax ñuy interpeller président parce que code du domaine public maritime article dix-neuf bi moom moo jox président sañ-sañ pour que moom mu déclasser euh, une emprise foncière si littoral bi pour di ko joxe mais bu fekkente ne littoral bi yëpp ñu koy joxe te ñii ñu gis foofu ay nit yu naqari ñun ñi nga xamante ne dañu jël suñu suñu bëgg-bëgg def ko ci littoral bi di wax pour ñu préserver ko alors waa aar littoral nag ñu leen di féliciter parce que ak acteurs yi yi nekk dans les réseaux dem jàppale leen alors dugal nañ recours au niveau de de de la justice alors léegi nag recours boobu j'espère que la justice dina trancher en notre faveur nous les amoureux du littoral nous les défenseurs du littoral loolu am yaakaar parce que quand même ñun je, je pense même code de l'urbanisme et tout mais am na béréb yu ñu warul tabax le littoral euh, donc voilà et am na ay zone non édificantes yi donc littoral bi presque dafa fattu fii si Dakar aussi donc loolu mais loolu du dëgg du yoon waxuñu kenn du tabax si littoral bi mais liñ ko war a tabax ay infrastructure publique le reste du littoral ñu aménager ko waaw doom aadama yi mais am fu ñuy demee si littoral bi conséquences yi nag musiba la sur le plan environnemental soo defee une analyse environnementale il faut que population yi seen xaalis rek bon xamuñu géej ñëw dëkk foofu alors léegi littoral bi et que i kër dafay yàqu ji avec l'érosion côtière dañuy dem jël ay milliards man xaw fu ñu jëlee milliards yi sax alors dem dugal ko immobilier tabax booru géej mais seen benn appareil du baax parce que brise marine bi daf koy littoral baa ngi avancé day daaneeli ji biir Sénégal xam nga créer ay entreprise ñi ñu liggéey alors beneen bi conséquences environnementales yi mais loolu leen koy wax alors jën yi si littoral bi la ñuy ñëw di nen euh, beneen bi euh, bu tawee comme si jamono ne nawet lañ ne gis nga ban bi di dem géej bu jëkkoon dara fatuwul bu tawee rek lépp day dem géej ban boobu si la zoo euh, phytoplancton yi ak zooplancton yi ne yooyu noonu mooy micronutriments yi nga xamante ne mooy dundal les fonds marins wala mooy mooy régénérer les écosystèmes marins te écosystème marin bi bu régénéré wul alors jën du am ak lépp lu aju si géej lu nit di jariñoo les poissons et cetera alors loolu noonu alors mooy danger bi c'est-à-dire ñoom dañuy rey alors euh, la la chaîne alimentaire bi ñoom dañ koy dañuy créer rupture biologique c'est dafay mel ni ku jigéen koo xamante ne dafa jaasir mënul jur doom bu boobaa nag géej gi du am jën su amule jën amul mollusque amul crustacé mais mais xam nga ne Sénégal takk nañ parce que bon loolu comme la bu rëy a rëy si Sénégal déjà communauté pêcheur bi rek et encore les indicateurs dañuy wax soixante Sénégalais vivent sur le littoral donc bu géej bi amulee jën mooy dañuy day exposer même la population sénégalaise à des problèmes de santé publique daf koy poser pourquoi parce que alors euh, ñi ñi du ñu am euh, ferñeent yi nga xamante ne ma yi war a jóge ci protéines yi euh, animales yi war a dem dundal doomu kii le corps humain alors dafa am lu leen di manqué muy le poisson les mollusques et les crustacés beneen bi mooy am na beneen problème de santé publique parce que littoral bi yëpp zone de décompression la pour les populations te population Sénégal yi dañu stressé parce que dëkkuwaay yi dafa xat alors euh, gis nga boo demee tali bi di si tali bi nit ñi dañuy énervé rek ah énervé si dëkk bi mais loolu alors compression bi am la xam nga surtout à Dakar démographie galopante bi fi am kenn maîtriser ko ba pare ay espace vert parce que le littoral est un espace vert ay espace vert amul bon nit ñi amuñu fuñ décompressé alors nit ñi bu ñu comprimé à ce niveau mais nit ñi dañuy péter un câble li ko tubaab di waxee c'est-à-dire dañuy disjoncter ci seen cerveau te cerveau foofu loolu mooy indi AVC yu bëri ci dëkk bi gis nga AVC léegi ni mu mel bu jokkoon melul noonu ça parce que les gens sont stressés nit ñi amuñu fuñ aw beneen bi aussi conséquence environnementale mooy littoral bi bi mu fattulee da ngay gis ngelawu géej bi dafay dugg si dëkk bi mais bu duggee ci dëkk bi dafay balayer polition bi maanaam pollution gasoil day balayer les mauvaises odeurs ah que yooyu yëpp day impacter négativement la santé des euh, bu nit ñi alors loolu bu fekkente ne amul aussi mais nit ñi dañu am ay problème de santé xam nga gasoil bi nga xamante ne moo am ba indicateur bi Dakar man mi defoon naa benn atelier bu yàgg ah ëpp na juróom si ginnaaw euh, la pollution du gasoil à Dakar fële centre euh, des transports terrestres mais si atelier yi ni ñu travaillé dix jeunes de Khombol alors neuf yi n'étaient pas exposés au cancer mais dix jeunes de Dakar yi ah les neuf étaient euh, exposés au cancer mais b ñu toppee indicateur yooyu xool ne Dakar nakate nit ñi dañuy noyyi la pollution du gasoil te pollution gasoil bi gasoil boo ko noyyee saxaaru gasoil bi te ñun ay oto gasoil rek moo nekk si dëkk bi alors gasoil bi euh, e de l'environnement et des établissements classés war nañ xam parce que am nañ euh, benn oto buy jël euh, la de l'air mm-hmm. mais gis nga Dakar époque boobu ay fukki at ak juróom ci pollution du gasoil Sénégal foofu la yemoon foo c'était admis c'était vingt virgule cinq pour cent donc qu'on ne s'étonne pas que di fattu te vent yi du gasoil balayer les mauvaises odeurs balayer yooyu yooyu avec les flaques d'eau le manque d'assainissement à Dakar les eaux insalubres yi di nekk ci un peu partout mais yooyu yëpp xam nga littoral bi buñ ko fattul woon mais mën na ci jouer un rôle déjà fatta littoral bi moo tax euh, ndox yu salte yëpp nekk ci biir Dakar parce que dañ daan wala Alors voilà un peu les conséquences et que conséquences yooyu bon c'est dramatique à l'heure actuelle ou nous parlons parce que Dakar dafa nekk une forte concentration démographique alors euh, nguur gi donc l'état là bon war nañ euh, jël seen matukaay ah alors régenter le littoral. mu may conséquence tey bëri na Omar Diagne tey gis nañ promoteur yu bëri ñi ngi daw di wutali li nga xam ne moo di les phares des Mamelles mi nga xam ne am na fi plus de cent ans tey environnementaliste yi ñi ngi alerter. ñu jàpp ni am na risque mu am éboulement foofule ca falaise des Mamelles euh, ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi mooy dafa mel ni ñun Sénégal bëgguñu lu baax lépp lu ñu am si lu baax lu taaru lu lu rafet dañ koy yàq xam nga phare des déjà dañ ko classé parmi les les cent phares du monde phare des Mamelles dafa am loi Senghor Léopold Sédar Senghor bi euh, que la terre lui soit légère alors moom euh, amoon na gis-gis parce que moom en soixante et onze jëloon na benn la loi du janvier mu protéger le phare des mamelles bu ñu ne phare des mamelles nag mooy colline bi ak environnement colline bi yëpp alors euh, euh, loi boobu mais jógeegul Sénégal déggu ma ne assemblée nationale abrogé nañ cette loi alors li am phare des mamelles man xaw ma xaw ma nan laa ko mën tuddee wala wamee nga fa Tahirou Sarr ngi ñëw di fa def ay building of yu kenn xamul mais loolu Sénégal rek la am alors léegi phare bi agressé nañ ko à outrance sous l'œil du phare maanaam euh, façade bi nekk si tali bi Janox Wakam mais phare bi agressé nañ ko aussi si ginnaaw agression si ginnaaw ñaari agression la dafa euh, euh, maanaam ñaari agression des agressions euh, multiformes léegi fële bu dee si kanam donc promoteur immobilier yi dem nañ di creuser faar bi di yàq faar bi bon alors loolu loolu loolu loolu teguñu ko fen donc Macky joxoon na instruction pour que Wami jóge foofu ñu dédommagé ko mais mais ministre de l'environnement ak ñi si topp ñëpp géologie mine defuñu si dara donc ñu ngi interpeller Macky pour que mu wax si loolu il faut que faar bi a jóge ñun du ñu bàyyi même ñun buñ fi jógee parce que ñun nous ne sommes pas éternels dina am ay génération yu ñëw ji wala benn président de la république bu am vision dindi fa construction yooyu yëpp alors boo demee ci ginnaaw phare bi aussi il y a ce qu'on appelle l'érosion éolienne maanaam ngelaw lii di dal ci phare bi mu ngi creuser la roche il y a l'érosion maritime côtière ndox mi di dal ci phare bi géej gi euh, vague yi mu ngi euh, dindi euh, wàññi bi suufu phare bi di di creuser la roche alors il y ay nit yu dem di gas phare ginnaaw mooy suuf su ñuul soosu su biir mais extraire ay scories noires moo scories noires ay euh, roche basaltique la yu yoo xam ne volcan bi daf ko lakk ba mu nekk des roches euh, spongiformes maanaam ay roche yu am ay bënn bënn alors moom la jigéen ñi daan seen talon seen tànk yi mais mais loolu mais loolu nguur gi mais mais état bi dafa mel ni saytuwul dara quoi voilà ñoom ñoom ñu ngi nii toog bon bu weer dee ñu jël seeni salaire lekk ko et puis dem di tabax ay kër un peu partout c'est un peu ça et que loolu loolu rek la am loolu bokk na ci patrimoine am yi mu waroon gën a fonk moo tax mais Senghor jëloon këpp mais protéger ko la direction du patrimoine xaw ma fuñ ne mais ces fonctionnaires là c'est des fonctionnaires peut-être carriéristes ku ci wax ñu a nga ragal ñu dàq la mais ragal yëpp yàlla la il faut que les citoyens sénégalais quand ñu wax ci phare bi alors coordination du phare bi ma bokk nga xam ne ay kilifa ñu nga fa dem nañ am ay Tata Marie Angélique Savané général Mamadou Mansour Seck ex de la Rado ay Mignane Diouf du Forum social ay professeur social mais ñooñu mais ñooñu ay kilifa lañ buñ demee ba toog ak président de la république président de la république joxe instruction ne phare bi bu fa kenn demati di tabax mais quand nañu dindi tabax yi fa ne mais loolu war nañ ko war nañ war nañ war nañ war nañ ko respecter donc loolu noonu moo ñu naqari aussi si phare bi alors euh, man daal vraiment maa ngi c'est avec le cœur que je parle man man mënuma comprendre loolu beneen bi phare bi dañ ko war a valoriser c'est un patrimoine qu'il faut val préserver protéger euh, et valoriser valoriser comment nous projet de créer un géoparc niveau du par exemple ñu reverdir le phare def fa ay banc def fa ay piste cyclable def fa ay piste yu ñuy doxantoo noonu ba ci kaw mu wër montagne bi def ay place yu ñuy pique kaw mu ci montagne bi après ñu ñu fay organiser ay camps de reboisement par exemple annuel mais des camps de reboisement sous-régional euh, sous-régionaux bon voilà alors euh, ñuy jël ay Mauritaniens Gambiens Maliens la sous-région ñu leen di ñu ñu ubbi ko vers l'Afrique ubbi ko vers le monde alors phare bi jël aussi élève bu Sénégal yi même jàngal leen faar bi man bi may jàng nekk école primaire def nañ fa visite Macky Sall ma jox la encore benn information mémoire d'étude am mais si faar bi la ko def parce que roche yi nekk foofu c'est des roches stratifiées c'est le phare c'est un volcan de type éléen éteint depuis l'ère quaternaire ma ma nga baal ma si tubaab bi mais phare bi volcan la volcan boo xamante ne ah depuis ay quarante millions d'années la la la la la la la la la la la fay ah alors volcan boobu mais benn volcan bi moo fi am fii si Sénégal nekk fii si Wakam phare bi alors Macky Sall war na jóg bi donc euh, le président de la République avec tout le respect que nous avons vis-à-vis de lui donc phare bi alors bu ñu continuer agression yooyu mais phare bi mën na yeewu un volcan mën na du jour au lendemain mu takkat mm-hmm. alors alxuraan nee na la main de l'homme c'est la main de l'homme qui détruit mm-hmm. donc la nature n'a rien fait d'autre xam nga que nous que que qu'avec sa générosité mu may ñu li mu ñuy may donc ñun nit ñi ñoo war a mais euh, nature boobu ñu préserver. Omar Diagne gis nañu tey phénomène bi day gën di bëri euh, tey yan conséquence la ñu mën a jural bu dee phare des Mamelles tey euh, daa disparaître. mais conséquence yi musiba la yow it xam nga mu maa ngi wax léegi ne la mais volcan bi bu yeewoo gis nga li muy yàq Dakar du xam nga luy volcan ah mais volcan bi mën na yeewu loolu loolu conséquence beneen bi mais ñi ñi il faut que comme li ma la wax yëpp na ñu def un outil pédagogique ñu embellir phare bi mais loolu loolu day tax nit am tawfeex day tax nit ñi gën a am wér yaram déjà sur le plan esthétique ce sera xam nga parce que tar bi buñ ko valoriser woon comme ni ma la ko wax ñu bind fa écriture euh, grandeur nature Dakar wala commune Wakaam ñëw am idée bi def Wakaam mais loolu carte postale la loolu loolu loolu li muy indi si si koom lu bëri la parce que ñu bëri dañ koy visiter te dafay jaay la destination Sénégal euh, kenn du ma weddi parce que man inventé ma dara dama xool li am bitim réew rek feneen ak feneen ma wax da gis ñu bind si Hollywood Hollywood grandeur nature mais phare bi yooyu lañ ko waroon def dañ ko waroon embellir dañ ko waroon préserver d' abord alors embellir ko alors euh, ba pare mu nekk une destination touristique mais li ñuy def nii mais catastrophe bi mu mën a jur mooy mooy mooy c'est mooy et puis mën na compromettre la navigation maritime aussi ay accident am si géej bi parce que phare bi mooy orienté bateau yi loolu xam nañ ko phare bi aussi bi fi aéroport bi nekkee dafay dafa bëri bëri na alors nit ñi doomu aadama yi di dem foofu des particuliers pour di yàq le périmètre du phare na président de la république la ñuy pour mu wax parce que bu ci waxul ñun ay acteurs de plaidoyer lañ ñun euh, approprié wu nañ comme ni ko euh, suñu constitution waxee ne da les ressources naturelles yéen a ko moom mais phare bi c'est une ressource naturelle parce que doomu aadama sàkku ko voilà montagne la colline la alors euh, et de l'environnement a kilifa yi ñu siy wax euh, mu jaral ñu lu ne nag donc président de la république Macky Sall moom la ñuy interpeller pour que par bi décision yi nga xamante waxoon na ko te ay ministre am doxaluñu ko surtout le ministre de l' environnement ah voilà ak ay mineur géologique ñu ma xamul mais Macky na wax si faar bi voilà na si wax parce que moom moo si war a wax alors li fa nekk yooyu si ay tabax ñu dindi ko fa su ko defee faar bi nekk faaru ñëpp mais bañ nekk faaru tayru saar wala wani wala xaw ma kan foofu.